jërë ngeen jëf euh, nuyu nañ leen bu baax ziar leen ci ajuma ji euh, dellusiwaat euh, ñëwaat ci tuute la ñuy jagleelaat ko politique politique ndax xam ngeen ne fan yi mooy li gën a fës ci ci xëtu yéenekaay yi waaye li ci gën a am solo mooy mercredi bi ñu génn ca la ñu woolu woon ki nga xam ni moo di Barthélemy Diaz ba noppi jotul dem ca tribunal ñu daal di dàq boobee audience gis nañ la ca topp yëpp ci ay manifester ak ay yëngu-yëngu loolu yëpp dinañ ci. dellusiwaat waxtaan ci élection locales yi waxtaan tamit euh, ci enjeux yi waxtaan euh, ci wàllu programme ndax euh, yenn saa yi dafay mel ni dañ koy xaw a fàtte lu ci ëpp nit yi la ñuy jiital du ñu wax ci yi nga xamante ne xëy na mooy li soxal nit yi wàllu sécurité itam dinañ ci taxaw ndax am na solo gis nañ ni ñi bokk ci yenn ci coalition ci opposition bi woote nit yi daal di taxaw fippu ndax wane seen ñàkk ànd ci doxalinu kilifa yi loolu lépp dañ ci dellu si ak suñuy gan waaye ajuma bu jot maa ngi ànd ak ñoom Pape Ousmane Cissé maa ngi lay maa ngi lay fay Ndeye Am Touré di nuyu bu baax di ànd ak euh, mbégte ci ànd ak yow comme ko waxee vendredi bu jot di nuyu également gan yi ñu àndal di nuyu Abou nuyu sénégalais yi nekk fii ci réew mi ak ci bitim réew. jërëjëf Abou Diallo maa ngi lay ziar. waaw onze billahi mina seytaani rajim salaatu wasalaamu ala rasulillahi seydina muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu lay delloo ziar di ziaraale kilifa diine yëpp ziar suñu buntu Tiwaawoon soxna Faat si Dabaax mu ziareel ñu Serigne Mbaye Sy Mansour suñu xalif ziar suñu buntu Touba Serigne Moussa Nawel ziareel ñu Serigne Muntaxa ziar Serigne Baba Lamine mu ziareel ñu Serigne Mahi di ziar ñëpp di jaale aussi ñi ma bokkal côté waajuru góor sama bàjjen Adja Tamar Ba bokkoon ci ñi may seetaan télé bu ma déplacé wu mu déplacé wu dem fa doon ma commenté samay émission di ko jaale ñi ma bokkal maam ba ak maam Abdoul di ko jaale màgget Sow ak sama bàjjen Dieynaba bi fa des di leen ñaanal ñu gudd fan ñi fa des moom yàlla xaare ko àjjana lim ma ñaanal nag yàlla yàlla nangu ko parce que nee na ma sa yaay liggéey na ci kër gi loo xam ni àdduna bi yëpp war nañ laa mën a xam maa ngi ñaan yàlla na yàlla nangu ñaan yooyu ma sama bàjjen Tamar jërëjëf abu euh, Diallo ñu ngi tam si plateau bi ak euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye euh, nekkoon ki yor kaddu présidence de la République ci jamonoy président Abdoulaye wadd tey itam mu fare ci nguur gi monsieur le ministre nuyu nañ la. maa ngi lay nuyu soxna Aram di la wax mbégte mu am vraiment ñëw. jàkkaarlu ñu ma xam yëpp xam nañ ko ah, dañuy wax man dama am sax vraiment damay rafetlu dal gi muy liggéeyee ak jàmm ji mu àndal franchement muy am mbégte bokk ak yow suma jarbaat suma xarit également euh, Cissé même chose di rafetlu teewaayu major Kandji moom it mu bokk ci ñi nga xam dama koy suivre régulièrement ndax pertinence am ak xam nga dal ak jàmm dafa baax ci nit mhm. euh, maître à travers lui je salue notre ami Sékou qui nous suit certainement depuis Paris on a un ami commun euh, moom tamit may rafetlu taxawaayam ci réew mi parce que comme je le dis dama am respect ci ñëpp ñi engagé wu en politique parce que xam naa la mooy politique. Abu également maa ngi koy nuyu suñu mbokku taalibe la euh, di ko ñaanal loolu ko bàjjenam ñaanal yàlla na ko dal. di ñaan également lépp lu ñu fi wax rek yàlla na njariñu askan wi ku fi déglu woon naqari nga jéggal ñu ko doon suñu yéene. jërëjëf maître Abdoulaye Tine mi ngi ci plateau bi moom moo jiite union sociale libérale euh, maître nuyu nañ la. Euh, maa ngi lay fay di la jaajëfal ci dalal Euh, di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom laa seqal par plateau bi muy monsieur le ministre euh, Ndiaye Serigne Mbacké Ndiaye di nuyu aussi le major Kandji yi di nuyu aussi ki nga xam ne moo ma dalal fii aussi invité ñu. muy monsieur Cissé. Mm-hmm. di nuyu aussi monsieur Diallo nga xam ne c'est la première fois ñuy seq plateau parce que monsieur le ministre je pense que mos nañu seq ay plateau en tout cas di am mbégte ci simili yi di ñëw jàkkaarloog sénégalais yi pour wax ak ñoom ci question yi nga xam ne ñoo soxla askan bi jërëjëf euh, Aliou euh, Kandji major gendarme à la euh, retraite major Kandji moom xam naa tur bee ko jiitu man dañoo major Kandji rek après tak sama xel te am fu mu dem ndax gis nañu euh, liggéey bi ak tamit euh, plateau yi nga xamante ne nii mu ngi koy def kontaan nañ ci bokk ak yow plateau. waaw anam kontaan nañ ngi lay nuyu comme ni ko monsieur le ministre waxee rek moom it on a vu son engagement dans l'apaisement du pays donc euh, vraiment on le félicite. di sant Pape Ousmane bi nga xam ne moo ñu invité parce que day incité chaque fois monsieur Touré. di ko moom it di encourager pour mu persévérer dans l'effort comme Maître Tine on a vu son expérience dama koy suivre même tout fait même pas je pense une heure de temps am na fu ma gis noonu mi ngi intervenir ma demee si il fait le parallélisme des pensées donc c'est extraordinaire mais comme ni ko mis waxee rek réew loolu la quoi parce que il faut que qu'il y ait des gens qui apaisent et qui expliquent la réalité Mm. mais c'est dans les mécanismes de résolution des conflits mm-hmm. xam nga dafa am ay une méthodologie moderne et une méthodologie traditionnelle ñun li ñuy def se assimiler à la méthodologie traditionnelle pour que les peuples puissent se comprendre et puis se tolérer parce que manque de compréhension mooy indi tout ce qui est fitna ci réew mm-hmm. donc loolu la donc on est content d'en débattre aujourd'hui jërëjëf ñu euh, taxaw ci li nga xam ni moom laa doon wax sànq major yow li ñuy njëkkee euh, muy euh, li xew ci àllarba bi ñu génn euh, gis coow li mu am yenn ci ay kilifa ñu jot leen teg loxo ca bu jëntal ñu bàyyi leen euh, naka nga euh, jàngatee li nga xam ni gis nga ko ci bés boobu. bon li ñu koy jàngatee sur le plan sécuritaire mooy y a un leader politique boo xam ne dans le temps et dans l' espace. comme ni ko ñoom maître di waxee en temps non prescrit par l' action publique <laughs> parce qu'il doit être poursuivi donc ay magistrats dans l' administration de la procédure pénale convoqué ko. Mhm. alors que c'est lui qui avait fait appel. xam nga loolu dans la subjectivité de la pensée sénégalais rek moo ñeme di génn ci loolu <laughs> yow jugé nañ la nga def appel mais auto te convoque mais allez-y d'abord il faut qu'on prenne cette habitude d'aller répondre d'abord ba xam yow dañ la te normalement ou pas mais le temps de de de la convocation kooku sa dafa incomber administration judiciaire ou tribunal bi koy employé. ñoom la incombé yow munoo yeew rek dañ ma woo parce que damaa damay bëgg nekk candidat dañ maa woo parce que bëgg a takk benn jabar te procureur da ko nopp xam nga c'est c'est la même pensée ça peut pas exceller partout donc ce qu'il et quand on vous convoque devant les juridictions nga dem ce qui s'est passé ñoom c'est de la responsabilité parce qu'il faut avoir le courage de dire parce que ñoom ñoo génn ma euh, manifester et s'opposer pour une simple convocation de la justice comme neex nga ne c'est à raison politique comme neex nga ne c'est normal mais ce qui est évident dans l'esprit et la lettre ay magistrats dañ convoquer quelqu'un pour juger ko tout court léegi les gendarmes étant sortis ils ont la mission d'interdire les attroupements et les déplacements pour manifester dans le dans l'espace quoi quelque part ailleurs suñu leen neexoon ñu dem seen siège. Mm. toog fa def leen mais c'est des leaders politiques avec la personne intéressée ñoom ñoo braver les interdictions sur la police administrative parce que c'est du ressort du préfet les gendarmes c'est des exécutants on leur donne des réquisitions en cas en temps nécessaire pour ñu génn interdire ce ko a interdit. mais toog xaar ba xëy doog koy wax ne que dàq nañ ko jaratul muy ñëw. te xam ne ni ki waajaloon na pour dem ndax loolu tamit participer na ci luy instaurer euh, jàmm wala euh, sécurité boobu ngay wax. xam nga quand les magistrats instruisent un dossier maître xam na quoi c'est pas parce que avant da nga naan ko nous ne sommes pas en état ne venez pas ñoom dañuy enrôler bu ñu enrôler ba ñëw chaque fois cela est notifié devant une audience tribunal doxewul noonu du da ngay toog rek nekk nga toog waaye ne ko yow ce dossier bi nekkul en attendez encore non ils sont pas là pour faire ça dañuy dañ dafa ñëw ils ont dit que ils sont pas en état parce que peut-être dans la constitution peut-être de la cour am na problème boo xam ne ça permet pas le jugement ou bien dans les contenus dossier bi am na lu ko waral wala témoins yi nga xam ne dafa dañ leen waroon entendre am na kuñ ci euh, yi waroon ñëw ñu convoqué leen parce que y a y a ce qu'on appelle le retour de convocation mm. ak day ñëw bu ñëwee ci la ñuy doog a ñoom xam ne c'est bon c'est le dossier est à l'état tous les éléments sont là parce que aussi une audience pénale day am la partie la victime la partie civile et la partie poursuivie ainsi que les témoins donc yooyu yëpp c'est des c'est yoo xam ne dañ koy réunir ba xam ne tout est au complet maintenant ils vont aller sur le fond pour débattre. donc loolu la. maître euh, xaar ba xëy xam ni nit ki dina dem euh, wuyu ji convocation bi ñu wax la ne la finalement jaratu ngay dem dàq nañu audience bi ba ba jëmi jamono est-ce que xel mun na ko mun na ko nangu. waaw euh, xam nga mbir mi en fait maanaam yomb na expliquer parce que tout simplement. audience bi nga xam ne dañ koy renvoyé loolu luy faral di am luy faral di am fii ci tribunalu Dakar euh, man nekk naa fi ay at avocat wu collectif de victimes des violences électorales di baagante de renvoi en renvoi donc loolu luy faral di am la mais c'est que da ngay foog ñu distinguer ñaari mbir maanaam mbirum convocation wu tribunal bi ak mbirum renvoi bi Euh, mbirum renvoi tribunal du jugé parce que askan bi dafa génn ci mbedd mi ne nañu jugé parce que juge ci seen office maanaam waruñu leen teg benn xeetu pression du pouvoir du opposition maanaam justice mënta am te dal amul bu ñu rendre justice rek te dañu nekk ci pression mooy ñu ngi def leneen mais defatuñu justice parce que dañu war a xool lan la loi prévoir ñu àtte ci yoon léegi loolu bu amee yoon bu mbir mu mel nii amee dafay am ay parti ay pàcc yu bëri comme nu ko wax donc bu taxawee xool ne ñi fi waroon a teew ñëpp teewuñu wala mënuñu teew mën na ko daq ci yeneen i jamono bi nga xam ne même ka nga xam ne mooy ndeyu mbill mi moom lañuy ñuy bu dee pare na wala moom taxaw na donc loolu luy faral di am la euh, léegi mbir mi nag bu ñu bëggee mu leer ci bopp askan bi foog ñu féewalee ñaari mbir li nga xam ne mooy politique ñu teg ko ci pàccu politique li nga xam ne mooy justice ñu teg ko ci pàccu justice opposition bañ euh, donc mal def benn euh, manipulation pouvoir aussi bañ a def benn xeetu instrumentalisation. dossier bi en tout cas moom boroom jàpp na ni politique da si laxasu. est-ce que loolu dafa am. waaw ku ci nekk mag bu nekk sa xel doy na la mais. Euh, daa am li nga xam ne moo weesu dossier bi moo ëpp dossier bi muy Sénégal bi nga xam ne moom la ñu bokk euh, wax na ko sànq euh, su la yoon woowee bu la neexee dem bu la neexee bañ a dem hmm. loolu yaay yaay xool mais wakkuli àllit yoon dina àtte li nga xam ne moom lañ koy jébbal man lu ma dund ci mbirum tribunal pratique ko ci jàngale ko ci xam naa ne en tout cas en matière de justice loolu lay conseil ku nekk les absents ont toujours tort et que la plupart d'ailleurs euh, bu dee teewuloo dañ lay jox lu maximum souvent dem ci leneen parce que dañ koy jàppee leneen loolu moo tax ma jàpp ni mbir mi euh, foog ñu delloo si xel yi maanaam mbir mi luy am am na am na fu mu jaar benn yoon bu yegsee ci beneen yoon man lu ma jàpp moom mooy attitude bu gën responsable mooy nga waxtaan ak say avocat d'autant plus que am na ay suñu naataango yu xarañ ñoom. Euh, voilà di di dix ans ci benn dossier boobaak liggéey ñuy dem de renvoi à renvoi. ñu si bëri jàpp ne euh, dafa mel ni rek dañ ko téye euh, pour sonal Barthélemy Dias nga xam ne saa su fësalee euh, taxawaayam ci lenn loo xam ne ñor na ko ci biir réew bi ñu yëkkatiwaat dossier bi teg ci kawam. loolu tamit boo nee mm, magistrat yi kenn warul leen teg pression ñu ngi liggéey ak seen xel ñu ngi doxalee nu mu waree ba pare loolu di am chaque fois coïncidence boobu nit yi forcément. seen xel day dem foog ñu distinguer mbir mbir bi nekkul est-ce que Barthélemy Dias moo am dëgg wala pouvoir moo am dëgg. Euh, dix ans bu ñu xoolee bu ñu xoolee dix ans ci ginnaaw kan kan ñoo faroon. Hmm. mën nañ ko xool tey peut-être mbir bi dem na ba yegg dix ans parce que quelque part politique peut-être dugg na ci alors que waru ci woon dugg comme lu ma wax rek bu ñu bàjjee di dund situation yu mel nii euh, dañuy bàyyi politique politique ak euh, droit daa mel nii ndox ak dëwlin même boo leen boolee ci benn bassine duñu mos a jaxasoo d'une certaine manière donc loolu aussi moo tax que benn instant dossier bi mën nañ jàpp ni Barthélemy mu ngi war ak pouvoir bi et peut-être tey pouvoir bi li mu doon bañal Barthélemy peut-être léegi bañalatu ko. Mm-hmm. loolu moo tax mbir mi tàmbaliwaat. mais lu ci bënti ab moom mooy intérêt wu Barthélemy la mu jeexal mbir mi parce que sinon rek day nekk benn épée de Damoclès bi nga xam ne. ci nan mu nekkee intérêt mooy. mooy maanaam. mbir mi dem ba fu mu war a yegg. mooy lan am na benn décision bi nga xam ne rendre nañ ko peut-être moom expliqué wu na défendre nu la léegi tey cour d'appel ba nga xam ne fa la dem wala fa la ñaan pour ñu xoolaat mbir mi peut-être war na fa taxawaat organiser défense am adéquatement et aussi daa am benn mbir mi nga xam ne mooy yëggal dëkk bi gis nañ ko gisaat ko loolu foog mu deñ fi. moom mooy lan ku ci nekk ci démocratie euh, war nañ la mën a woo justice nga dem taxaw sans yëngal dëkk. c'est mhm. loolu. àndoo ci woote bi daal ne nit yi non mënuma ci ànd. man citoyen sénégalais laa mënuma ci ànd. parce que tey tribunal ña fay ñi fay woo bés bu nekk mat na téeméeri nit ku ci nekk bu deewee jël leen seen oto ñëw leen ñu continuer mbir mi du mën a dox donc aussi. Euh, foog ñu waxante dëgg bu ñu bëggee dëkk bi dox bu dee dañoo jóg bu dee lu ñuy woote dëgg la ci ñun dañoo bëgg a defar réew mi kuy defar doo yàq gis nañ fi ñi fi loru alors que loolu mënoon na bañ a bu dee ñoom dañu jàpp ni aussi dañu war a dem ak seeni i ñooñ euh, loi yi ak règlement yi may na leen ñu saisir préfet à l'avance demander benn autorisation mm-hmm. bu ko accordé mën nañu dem attaquer devant la cour suprême bu ñu xoolee ne mécanisme de régulation normale yi doxul boobu au moins mën nañ jël suñu benn responsabilité xam ne jéem nañ mais ku ci dekk dafa war a teg mbir mi ci yoon bu ñu bëggee dëkk bi dox muy pouvoir muy opposition aussi. monsieur le ministre coowal Barthélémy Dias. waaw xam nga soxna Aram dañu jël mbir mu simple simple compliqué ko Euh, da nga wax léegi nii dañ koy traîner depuis dix ans. Hmm. traîner wuñ ko depuis dix ans bul fàtt dañ ko àtte woon mu def appel Barthélemy def appel kon traîner wul depuis dix ans parce que jugé woon nañ ko ba pare moom moo def appel muy benn euh, ñaareel bi tooguñu ba léegi ñu du ko soog di convoqué le 10 mai le 10 mai. le président de la République jël un décret pour ñu fixer élection yi après un rapport du ministre de l'intérieur ñu fixer élection yii di ñëw au 23 janvier mais lu ci topp juin. waaw juillet Barthélemy taxaw devant le tribunal ñu renvoyé ko. au 10 octobre au, au euh, novembre. donc ba ñu koy renvoyer le novembre. tribunal xamul woon kuy doon candidat ak ku dul doon candidat dama bëgg vraiment yëf yi ñu teg ko chronologiquement ci yoon bu leer kenn ku nekk comprendre donc mois de juillet bi ñu koy renvoyé au 10 novembre fekk na président la génn na benn décret ñu convoqué les élections le 23 janvier xamuñu kuy doon candidat ak ku dul doon candidat donc su fekkee ni parce que maître vous êtes un avocat on vous appelle des conseillers su fekkee ni dañu renvoyer procès au 10 novembre yow mi bëgg doon kan nga xam ni da ngay doon candidat le 23 janvier dara terewu la dara terewul sa avocat ni tribunal man kat dama doon ñaan lii au ñu def ko tel date maanaam 10 euh, novembre bi gën fixé ñu yóbbu ko ba après les élections parce que dossier buy xaar de 2010 ou 2011 non 2000 c'était quand 2011 11 jusqu'à présent même bu doon xaaraat un mun mën na ko xaar donc yow bi nga xam ne yàpp jàpp nga ne da ngay dem élection bu la neexee demandé ko est-ce que tribunal de la topp wala du la topp beneen affaire la mais demande woo donc mënuloo yow nga xam ne dangay ngay doon candidat ñu fixe fixe date élection nga xam ko bàyyi ba ñu tax a taxaw tribunal nga ne élection yi moo tax li ma doon candidat moo tax xamoon nga ni convoqué nañu depuis le mois de juillet ça n'a pas de sens deuxièmement muy Barthélemy muy ñi mu ko àndal xamoon nañu ni mercredi bii ñu ko convoqué procès bi du am lu leer lay wax. naka lañ ko xamee. am na say confrères wax naa ci ak ñoom ci guddi gi veillu procès bi parce que ñoom ñu ko séq ñoom ñoo ñu mën a cité xamoon nañ ni procès bi du am. amoon nañ ne am na koo nga xam ni dina demander wala demander na ñu may ko mu defarwaat parce que amatul avocat loolu waxtaan la bu amul ci seen biir ak nit ñoo nga xam ne dañu représenté woon nguur gi. indi coow li dama bañ vraiment ñuy bu ñu duggee ci néeg def suñu combine bu ñu génnee di dugal askan wi lu ñu xamul. la moo indi coow li firnde bi en général je prends à témoin un avocat. saa bu ñu lay convoqué tribunal nga war a dem procès huit heures lañ lay woo à huit heures le juge est la ñu commencé def les renvois def les soucis vidés comme vous le faites en général. délibéré délibéré délibéré voilà les renvois ainsi de suite retenir bi Barthélémy bi mu xëyee demul tribunal kan moo demul tribunal Khalifa Sall et Khalifa était au courant de ce qui s'est passé télévision laay waxee Khalifa xamoon na ni procès du am. léegi da nga bëgg wax ñoom dañoo jël intentionnellement bëgg a yëngal dëkk bi rek moo tax ñu def li ñu def termine ku nekk tirer sa conclusion donc Barthélemy mi ngi toog këram ñeneen a ngi toog seen kër Khalifa dem na tribunal Khalifa moo génn annoncé devant la presse que renvoyé nañ ko jusqu'au premier décembre dem ci la Barthélemy soog ni mi ngi ñëw wuyu si xel xalaat lay jariñ donc manifestement la volonté de semer le trouble était là lu leer la beneen bi ci des et peut-être je vais je vais je vais je vais terminer ci loolu pour ne pas monopoliser là parole gis nga dafa am lu maître wax léegi et c'est important am réew dafa war a dox ci dëgg situation politique ne bu amee entre le pouvoir et l'opposition du foofu la ñuy séentoo dëgg gi parce que ku nekk da ngay xëcc jëmmali ci sa boor mais dafa am ñuy niroog ay arbitre mën nañ leen tudde noonu muy la société civile muy la presque que vous êtes c'est vrai dégg naa depuis jours boobu beaucoup de journalistes yoo nga xam revenir nañ su les faits lii ma expliqué dañu wax ko xam le ni Barthélemy depuis le mois de juillet xamoon nañu ni convoqué nañ ko mais dama bëgg muy man muy sama moroom ku def lu dul noonu que la société civile mi nga xam ne mën nañ leen jàppee arbitre parce que saa bu dara xewee dañuy ñëw jéem a rappeler les nañu am le courage de dire diw yaa nekkul ci yoon parce que nangam ak nangam la presse na am le courage de diir diw nekkuloo ci dëgg parce que nangam nangam moo tax nekkul ci dëgg mais boo remarqué à chaque fois ku mën di def tort ku am tooñ muy pouvoir bi muy opposition bu ñu la joxee tort ba pare dañuy jéem ut justification de l'autre côté te ñaari dëgg mënul am. nañu am courage parce que ñoom ñoo positionné en tant que tel ni ñoom bokkuñu opposition bokkuñu pouvoir dañu fi nekk pour ñu wax dëgg donc su dee ni pouvoir bi moo amul dëgg nañu wax lan moo tax amul dëgg joxe les éléments bu dee ni opposition bi nañu ko wax mais suñuy bàyyi xini mini jooju kenn ku nekk ñu di jéem a ay excuses je pense que dañu dugg ci engrenage boobu duñ ci mës a génn. Barthélémy Dias euh, coow li euh, naam yàgg na yaa ngi wax appel la. bu yàggee xëy na euh, dépendrul si si si justice bi moom moo introduire appel ba wax ji yegg si tey fu mu yegg si mais coow li bu ñu duggee ci biir balaa ñuy sori Barthélemy Diaz 2011 boobu ngay wax président Macky Sall euh, jamono jooji nekkagul woon njiitu réew mi waaye amoon na taxawaay boo xamante ne moom si boppam jàppoon na ni dañuy sonal Barthélemy Diaz rek nañ ko bàyyi mu ñibbi këram tey bu ñu taxawaatee gis ne. Euh, président boobu moo nekk ci réew mi te jàppoon jamono yooyee ne Barth deful dara <coughs> xel munu ko dégg. lan la xel mënul atta lan lan la xel mënul ne jàpp ne deful dara mais atta ba pare tey ñu gis ne euh, président Macky Sall moom mi fi nekk. lan mooy yoonu Macky ci dossier bi. moo jiite la président mooy con moo jiite. atta atta adet major daf bàyyi ma àgg. laaj naa la a raison. Ah, damay damay laajte. nga ne major président. ma ne président Macky Sall. Mm-hmm. moom mooy njiitu réew bi mhm. président Macky Sall mooy fal le ministre de la justice mhm. président Macky Sall mooy président conseil supérieur mhm. de la magistrature président Macky Sall bu taxawee tey lu mel nii am si réew mi te moom mu amoon ay jamono taxawaay bu mu ci am am nu mu waxee ñu gis ni bii nii dégguñu ko si waxu si day mel ni ànd na kon ci li ñuy wax ne Barth moo def te munoo ne bële yoon yaa ngi doon wax ne deful. yow question yi may laajte est-ce que El Hadj Ndiaye moo la ko sant. déedéet man El Hadj Ndiaye El Hadj Ndiaye. déglu dañuy waxtaan. j'ai bien xam nga yaa ngi toog fi nekk journaliste. dafa am ñu la fi nga am ay kilifa kilifa ba ci sa directeur général. mais du mooy toog naa la defal nii sa liggéey defeku na la président Macky Sall encore une fois man dama far mais du ma farfarloo ça veut dire quoi fu ma dëgg fekk damay wax ni lii mooy dëgg ci aw ma lu ma ci làq aw ma lu ma ci nëbb nëbbal kenn du dem ci xelum nit naan boo demee nangam la xalaat dama bëgg vraiment ñu gën a responsable gën a sérieux loolu mooy man ak sa ñëpp laa koy wax. Mm. booy wax dara dafa am firnde man li ma la wax fii dama la jox ay ay firnde yoo nga xam ni doomu aadama du ko dindi président Macky Sall le président de chef suprême de ceci ou de cela c'est vrai mais eh, vous tey jii fi ñu toog nii tey maître cour d'appel yu bari ñi ngi invalider di di ñi ngi ñi ngi débouté. Ah, non attendez non non non excuse bi bien. ñëw si cour d'appel non même bu ngeen non man sama argument la wax boo ci ñëw yaa xam noo ci ñëwee. dama ni xam nga fii lañ toog ñu ni le pouvoir booy instrumentalisé pour ñu bañ a pour ñu invalider ay liste ok tribunal la ngi tey di débouté di dindi décision nga xam ay préfet jëlul nañ ko di jox raison à l'opposition de deux choses l'une ou bien le pouvoir nekkul woon di leen instrumentaliser ou bien la justice elle est indépendante. ou bien da ngeen man li ma gëm te gëm ko mooy nous avons une justice indépendante nous avons des juges loolu mooy dëgg gi am na benn dama koy raconter toujours benn kilifa ba euh, Jean-Paul Dias pour ne pas le nommer. defal li ma lay wax vérification tribunal gis nga juge bi condamné woon bi placé woon su mandat na dépôt Bamba Fall. mu mettre en liberté provisoire Barthélemy Diaz dans son c'est le même juge bi mu mettre kii en liberté provisoire il a dit euh, enfin je constate qu'il a des juges courageux dans ce pays-là quelques jours après le même juge placé keneen ki euh, sous mandat de dépôt mu ne je vous l'avais dit c'est des corrompus il ne savait pas il que c'est le même juge donc il faut arrêter ñun politique bu ñu defee suñu ay toj-toj def suñu ay erreur dugg ci suñu ay njaaxum ku ci nekk wul dafa mel ni ñun dañu nekk am politique donc nous sommes au-dessus de la loi man su ma defee tey dara kenn waruma atte parce que je suis un homme politique mais le citoyen lambda bu defee dañ ko war a atte tëj ko tous les jours boo demee tribunal combien de sénégalais la ñuy atte di leen tëj. Mm. doo ko yëg keneen du ko yëg donc vraiment il faut faudrait que ñu bañ a nekk le porte-parole porte-drapeau porte-étendard de cette politique de ce discours bi nga xam ne même ñi ko wax ko. parce que boo gëmee ni justice bi n'est pas indépendante buñ la tooñee doo fa dem. non man or ku ñu tooñ da ngay dem parce que comme sénégalais dañ ñuy déglu. même moi après euh, voilà. donc euh, déjà par rapport ak li mu wax. est-ce que Barthélémy Diaz moom moo def appel du moom kese boo def appel. oui les deux le parquet aussi je suis d'accord. moom dafa def appel. ci parti bi nga xam ne jàpp na ni vingt cinq millions ndàmpaay yu ñuy wax. moom la war a jox. mais parquet ci boppam dafa def appel parce que dafa jàpp ni daan bi nga xam ne moom la ñu ko teg ñaari atu kaso yi nga xam ne juróom benn weer rek la ciy tëdd yu tollook yi nga xam ne moom la ko téye woon ñoom procureur dafa jàpp ne loolu dafa néew par mhm. rapport ak li nga xam ne moom koy tuumaan donc ñaari appel moo am donc tey enjeu bi moom mooy euh, tey peut-être moom mën na jël lu gën a fort loolu. Mhm. gën a diis loolu. parce que bakkan moo fi jógee. c'est ça. Euh, loolu tey boo ko xoolee peut-être moom war nañu mën a comprendre position Barthélémy Diaz parce que ku ci nekk nit nga après tout mu nekk homme politique ak lu ci nekk. donc finalement tey boo xoolee euh, procureur boobu ku ko sant appel bi euh, deful appel sans ministre de la justice yëg ko. c'est ça ministre de la justice kan mooy njaati njaatigeem. Euh, mooy président de la république comme ministre de euh, premier ministre amatu fi donc loolu beneen débat la ñuy yóbbu maanaam bu ñu bañee ñuy tam pouvoir bi à chaque fois bu amee benn dossier bi nga xam ne lal na homme politique moom mooy foog ñu couper lien ombilical bi chaque chaque fois dañ koy wax loolu moo tax aussi que sénégalais yi ci seen xel bi Dias ci biir boppam ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo koy supporter war nañu ñaaw ñort que parce que tey dañu nekkoon ci côté Macky Sall ba ñu fa jógee tey boobu la changé discours et peut-être ci la changé posture et que kenn xamul fan la koy jëmale lool aussi dañ ko koy nangul. oui voilà. oui Major lan la si bëgg a doon. ba ba une seconde non parce que. Euh, demal ci moom bu paree question boobu dañ ma posé woon question. <laughs> sur la position de Macky Sall. Ah tout à l'heure damaa fàtte nuyu le cardinal <laughs> monseigneur Théodore Adrien Sarr parce que dafa am benn benn waay bu nekk Ziguinchor Pascal Dieudonné parce que nit ñi aussi dañuy suivre di ñu wax ni souvent euh, bu bu ñuy fàtt bu leen ñu di fàtte mu nekk lu am solo aussi des critiques yu positif ma koy nuyu Ziguinchor di ko wax cardinal sama maam la bi may dox dossier Khalifa Sall dox na ci lu bari si la ñu fasante kóllëre muy nit ku baax église bi ci tànku jàmm du ñu def bruit mais li ñuy dox ci jàmm ci réew mi bari na trop Euh, li indi coow li euh, mettin kontaan naa trop parce que ku jege opposition bi ci taxawaay yu mujj yi mais wax ji nga wax ni dafa soxla ñu waxante dëgg amul jamono ji ku nekk dans l'opposition kuy tiim moroomu opposant am di ko wax dëgg jamono ji dañoo am pacte bu ñu signé ñoom mooy ñoo bokk comme ennemi donc fekk ñoo bokk ennemi rek ku bokk suñu biir lu mu def baax na nañ ko sànq jox ko immunité tey position bii nga jël mooy ñun bi ñu am ñu dëkkale ñu fu ñu dëkkul parce que dëgg moo tumuranke mais nag waxee dëgg ci xew xew justice bu mel nii am ci ñaari côté xew-xewu Barthélemy xew-xewu Ousmane ko dafay jafe parce que crise bi am confiance bi am sànq si sa biir wax wax nga ko danga ne instrumentalisation ak manipulation ñaari yooyu moo daje confiance amul parce que bu dee président de la république dossier Bougazelli mu ngi traîner ñu may ko liberté provisoire ne dafa feebaroon kilifa ak Simon di ñaan liberté provisoire feebar procureur teg ci loxo Bougazelli jox nañ ko liberté provisoire am mu ngi traîner homme politique la day battre campagne mu ngi soutenir campagne am te dossier am guñ ko président Ousmane Sonko ñu yóbbu ko contrôle judiciaire bu dee dañuy def communication politique ak stratégie ak lu munti am. mooy cabinet ka wa yoroon dossier génn na àdduna muy laaj ñu war fa delloo delloowaat keneen pour mu poursuivre mbir yi boobu ba léegi mu koy demandé ñu bàyyi fa loolu yëpp ci contexte bu mel nii bu ñu yëkkatee dossier Barthélemy Diaz bi muy dossier boo xam ne dafa jóge ci politique doog a ñëw ci justice bindi fa loolu nga doon ministre rek nga doon jege pouvoir porte parole munul dañ ci bopp parce que état bi ci boppam bi fi jóge mooy bu président Abdoulaye Wade parce que tey Serigne monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye bii moo doon def point de presse ñun di ñu tuumaal coup d'état <laughs> di ñu jiiñ ay armes détention d'armes ca bi ñu sànnee lacrymogène ya fële ñu booy ak ñeneen kañ jël ñu ngi koy ko yóole Ziguinchor parce que position ba mu tolloon ak élément d'information yooyu mu amoon ak justice tey preuve la woon ñu ni nii en général président de la république ak état ak justice dañuy am lu lu ñuy def bi ñu bëggee libérer Barthélemy mi Mimi Touré moo waññaar loxo Ousmane Diagne mu bañ accord de principe yi amoon tacite yi amoon entre Tanor et et, Sall pour que bu ñu jógee pouvoir il faut que ñu libérer Barthélemy Diaz daf ci bokkoon bi ñu yegsee loolu la njëkk a def mais pour nga mën a ñëwaat nag mooy Tanor boobu Barthélemy Diaz bi ñuy utiliser les magistrats di leen def ay magistrats pour que ñu libérer ko boobu accepté woon na l'injustice parce que ci moom la doon dal mooy comportement homme politique yi parti démocratique sénégalais bi nga xam ni fa la ministre bi nekkoon tey yoroon porte parole ab ñun jiñ ñu coup d'état jiñ ñu détenteur d'armes tey ñoom ñoo yóbbu woon fii Barthélémy Diaz te tey parti boobu tey ñu ngi soutenir Barthélémy Diaz ci sa combat loolu yëpp c'est l'homme politique bi nga xam ni moom moo ko indi donc si manipulation bi ak instrumentalisation bi li xew nii mënuñu dindi ci bopp sénégalais yi ñoom état bi que tant que réglé wuñu le problème dossier Ousmane Sonko bi parce que li mu wax tamit dëgg la c'est un homme politique parce que gis nañu dossier Khalifa Sall deful un an ñu vidé lépp bii nag boo waxee juriste yi dañ lay wax ne crime la 10 ans prescription bi mën na nekk lii mën na nekk lee duñ ko duñ ko nangu indi la rabat d'arrêt parce que boobu fexe nañu ba calculer ko lii am nag ñu ne la procureur peut-être que moom poursuite yi mooy xool moment bu mu ko neexee ak moment bu mu ko neex parce que ay textes ñoo ko fa teg mooy problème refondation bi ñu am ñun la classe politique ak société civile war a waxtaanee ci côté droits humains war a waxtaanee ci réforme yi loolu mooy débat bi am mais ni muy doxee nii procureur ni mu jaralee woon mu jël liste CREI def conférence de presse lim 25 personnes jëlaat bu Khalifa Sall chargé ko. chargé waat ko wan Sénégal yëpp ne xalifa Sall lii ak lii la def dossier yeneen yi nga xam ne dafa leen concerné du ko ci def donc pour que état bi mën ñu dindi ci suñu xel ci lu mel nii comme ni président Macky Sall defoon ba Barthélemy génn ne un an du ma wax parce que ñu ngi ci benn bennoo bokk yaakaar bi nii ak nii position bii nii tey ba mu jógee ci état bi moo ma dal ci Khalifa Ababacar Sall parce que bi ñuy xeex ak Barthélemy Diaz bi ñu koy xeexal man sama boppam euh, je me suis la parce que dama doon escalader miiru. miiru euh, ville de Dakar xalifa moo ñu doon dàq à la ville di ñu wax ni fii institution publique la mairie la kenn du fi xeexee politique boobu ñu nga fa ak Youssou Mbow ak Mbodj parce que boobu xaritu tanoor la jege na ko mais tey gis naa Khalifa Ababacar Sall bu wàcc tey di def trouble à l'ordre public nekkoon homme d'état ma gis ko ci homme de détail loolu jaaxal na ma it. ma gis une classe de l'opposition boo xam ne ni ay officier ku mel ni Déthié Fall la ci nekk ay Malick Gakou ancien ministre ay ñoom Ousmane Sonko xam ne ni lii ñuy def trouble à l'ordre public la xam nañu li ñuy def mën na entraîner lu ne ñu jiitu taxaw ci kanam donc loolu nga wax sànq si sa moroom classe de l'opposition boobu laa bëgg ñu mel ni yéen ñu wax leen ko jàkkaarloog ñoom wax leen dëgg lépp société civile bi wax naa ko Alioune Tine wax naa ko ñen ñu ñeme di wax gars yi Barthélémy li nga def du yoon danga nga war a wuy ji. Mm-hmm. Khalifa Sall en tant que homme d'état ñun bi ñu lay défendre dañ ne homme d'état nga waruñu la traîner nii waroo fekkee lu mel nii. yéen ñi nekk dans la classe de l'opposition xam ni Barth dafa am dossier de justice su ngeen ko investir xam ngeen ni bëgg politique. que pour que ñu bañ a bàyyi manipulation bi il faut que ñuy waxante dëgg journalistes yi ku mel ni Birahim Touré ak ku mel ni Daouda mi ni ñu jëlee seen i ren taxaw wax ci question judiciaire bi ñu ngi leen ciy remercier ñu soxla ñu ma président Macky les institutions de la République lañu faral ak le comportement des politiques politiciennes ak la classe politique qui manipule parfois l'opinion d'accord ah, abu ñu dolli waare ci un ministre de la République bu taxee ni metti na nga gis ñu gis say ñoom ñu leen di summi seen malaanu kiirlaay pour jébbal leen yoon yooyu dafa metti un ministre de la République ministre de la justice beneen ministre taxaw mu ne li xewoon mois de mars suñ ci laaloon kenn ci fi ma dëkk ñu taal leen taalaale seen waa seen seen seen waa kër un ministre de la république bu taxaw wax xam pour wax leen mooy ñun ñëpp dañoo déggoo ni ñu far par parloo la ñu mën te liñ ci mën a dimbali maître am na loo wax sànq ci ay esquisse de solution mais am na beneen ma jàpp ni war nañ ko ci boole chaque fois moo ko te saa yi ñuy dem damay gis lu koy dëggal mooy état parti xam nga tey bu ñu wóoroon le président Macky Sall mi jiite réew mi amul nekkul président de benn Bokk Yaakaar nekkul président APR que sénégalais yëpp a yem ci moom tànn ñi mu jàpp ni ñii ñoo gën ci vision bi mu am ngir doxal réew mi jàpp naa ni xaxar bi am jafe-jafe yi am crise de confiance bi am ci acteurs yi manque d'élégance bi am ci la classe politique d'une manière général moo xam ñi féete opposition moo xam ñi féete pouvoir ba nga gis ci élection locale yi lu ma mësut a gis wala bu daan am tey la ëpp nga gis koo xamante ne dafa naan aram aram nday aram Touré li nga woote woon ànd naa ci guddeeg ba ci subangoon ngoon ñuy yëngatu ngir ni ñuy def ba gañe suñu gox ñu dem ba confectionner dajale li ñu am yëpp jox la ne la yaay suñu mandataire nga ni meng dem ñu lay wër gisuñu la ba dalee paas nga xëy ni bàyyi naa leen àndatuma ngeen maa ngi ànd ak dew loolu ñu koy gis ci pénc mu mel ni ça n'aime personne nga gis également ni ñu mën a waxee nii euh, maanaam ñi ñi féetewu ci pouvoir suñ ne ah diw de nangam ak nangam am ku bokk seen biir de surcroît nekk goro président de la république bind lettre bu gudd jagleel ko njiitu réew mi wax ci euh, parce que dafay baax aussi tamit bu ñuy wax ñuy wax ma maanaam jafe-jafe fi mu nekk pour que bu ñuy wax solution ñu xool ni le mal et si ñun la ci ñun la ba pare dañuy dem ba ràggal ñi ñuy woowee les militants nga xam te du ñu am sax argument bu leen permettre ci penc mi su dara jibee ban position ban attitude lañ war a am bañ a am bañ am rek benn attitude suiviste mooy diw sama njiit la ci lu mu nekk ma ànd ceeg moom même bu fekkee il a Euh, kooku may wax naan la goro euh, président Macky Sall la ci lettre bi dama lay wax euh, lenn ci benn passage ci lettre bi mu bind nga xool par rapport ak ñuy wax ni dañuy jëbal seen kàddu maanaam violence bi fi mu tàmbalee ñu koy bàyyi di ko bay bayal nda ko indi mooy ni dañ dem ba ñii dañu ne gisatuñu institution ñii dañoo far lépp lu ñu rend comme décision engagé wuñu parce que dañoo far liñ koy fajee mooy wàcc ci mbedd bi wane suñu naqar quitte à ce sax réew mi embrase suñu yoon neew ñee taxaw ne duñu ci ànd te pourtant am na ko ànd seen biir wax lii monsieur le président vous parvenez à vos fins en bloquant nos listes de la coalition Defar sa gox alors demandez aux régisseurs de vos prisons partout au Sénégal d'aménager des cellules et de prévoir notre séjour carcéral cette car cette bataille sera épique fatale et sans concession aucune mm. suñ ko tekk ci wolof dafa leer mooy nit ñee taxawee ni waa ji ñu jàkkaarloo xamul institution lijjantiwu ko la mu xam mooy li mu bëgg li li muy dégg mooy rapport de force combat résistance dara ute ko ak lii mu wax ni te pourtant ki wax li mu ngi nekk ci ñi nga xamante ne tey mën nañoo wax ni ñoom la ñu àndal si gis ñu li wane ni waroon ak ñoom pour dire quoi aram fa laay jeexalee peut-être ñoom li ñëw parce que man du ma ñëw ci coow li fi am li fi jàll li fi kii wax nañ ko wax waxal nañ ko demaat nañ ci nangam damay wax ni li ñu wax sànq il faut parler vérité c'est-à-dire dañoo ci réew moo xam te ne ndeysaan des fois soo wax dëgg dañuy ñoo xam ne argument bi ñu am comme ni ko waxee ni saaga wax lu ñaaw ba ñenn ñi bëgg a delluwaat naa dama neen ñooñu rendre ñu service la république rendre service réew bi li ñu war a def mooy fi ñu ci toll jaay seeni der. jaay seeni sant jaay lépp jàkkaarloog l'ennemi mooy ce sénégalais là qui ne veut pas avancer bi bëggul ñu jëm ci les vraies ruptures mooy sànq li ma wax état parti. am na sax ku bind barki démb te muy jeune te ñu ngi koy xaaree ci ndaw ñi xam ne ñooy politique man wax ma ñi xam seen wàllu wéy na. d'accord mooy ne dem nañu ba racine bi jàpp. pour détourner leen dana métti pour defar leen man ñi may wax mooy. le militantisme il faut tey tey li ñu gis yëpp mooy fayit benn système boo xam te ne depuis 60 ñoo fi nekk. mooy tey maa ngi fi suba mën naa féete fële changé waat xool rek ñu ma a wax ñii fi incarne le système depuis soixante jusqu'à jour ñoo ànd ak diw tey ñoo ko di suba militants yi di ci ànd noonu ñu ràggal seen xel ba amatuñu sax taxawaay bu leen permettre ñu am cette lisibilité tey ñu jëm ay élection locale dama laaj askan wi ñu xam la parce que am nañ lisibilité bu leen permettre ñu xam ñan tey ñooy laaj seeni gox <laughs> léegi loolu kan lañ koy euh, euh, ku ñuy imputer responsabilité du classe politique bi fi nekk ñoo xam te ne ñoom ne dañuy ñoom ñoo war a defar askan pour ñu taxaw moo tax ma ni da ngeen ci am responsabilité en tant que cette nouvelle génération mooy ñu réfléchir comme ni ko bind bindkat bi waxee barki démb comme Abou day wax ni livre bind am na solo mu ne gouvernement de concordance au moins il pose le débat pour proposer yeneen alternative au moment où ñuy gis ni saturation am na euh, système bi dem na benn moment mu am ay limitam feeñal na ko mais waruñu fi toog ñun ñu continuer ci loolu man de bokk naa Sénégal xam dañoo bañ dañoo topp bii am nañ yeneen possibilité mooy rupture bi d' abord am na ñu ko wax rek ci opposition bi ñu ngi leen di xaar ne bis bu ñu jotee ci réew mi en 2024 li ñuy njëkk a def mooy ni demeet euh, maanaam nekkatuñu kuy jiite seen parti politique. ñu commencé foofu ci réfléchir ci ci poser le débat bi pour que nit ñi ñuy seetaan di ñu bàyyi xel ci penc mi xam ne mbir mi du saaga xulo du werante du du tamante dëmm du parce que da ngaa far rek lu la neex nga wax euh, euh, dara du la ci fekk. absence boobu noonu am ci ñàkk am confiance boobu noonu ñoom la entre politique yi léegi nag di nga am na ci administration territoriale dinañ ci ñëw xam naa ci deuxième partie bi ñu ànd ci loolu comme di nga gis justice ñoo xam te ne ña nga ca far nañ ñooñu ñëpp nag ngay boole boole ci benn sac xam ne du Sénégal bi ñuy xaar ñañu soxla nag ñoo nekk rek ci diggante bi ne dañuy wax ak seen aqulay taala ñooñu nag bu ñu wax ci penc mi <laughs> mais laajul désordre alors man bëgg naa laajul indiscipline bëgg naa ñu taxaw ci euh, ci responsabilité Euh, de part et d'autre am na tey discours euh, c'est vrai coalition yow appelé à la résistance loolu lañ trouver comme forme de euh, forme de lutte pour mën a euh, wane seen ñàkk ànd ak lu mel ni ñu gis ku mel ni docteur Babacar Diop bu FDS Guélawa mhm. moom itam ne tant que validé wu ñu liste opposition yëpp élection du am le 23 janvier ñu gis également ci kanam ñi ñu jàkkaarloo Euh, su ma ne ñuy jàkkaarloo je pense Benno Bokk Yaakaar ñoom tamit génn am des fois kàddu yoo xamante ne day mel ni euh, dañuy tontonte wala dañuy defar dañuy defante loolu ñu gis ko euh, ci pénc mi ba pare ñu ne euh, jàmm moo ñu ñor ba pare ñu ne stabilité la ñu bëgg te ku nekk yaa ngi xool nooy xoosee sa morom euh, pour que loolu euh, mën a nekk loo xamante ne dina la jëriñ ci sa ci sa camp. <coughs> est que duñu xoolaat tamit discours bi nga xamante ne moom la ñuy jébbal askan bi ngir fexe jàmm joojee mën a nekk luy law ci réew mi. major Arame tu me devais un complément que j'ai pas encore fait ah, dinaa ñëw si <coughs> <coughs> comme ni nga wax Arame vous savez politique yi au Sénégal maintenant comme li ñuy wax bëggee quoi en informatique quoi. c'est-à-dire l'intérêt qu'il vise dañ dul ak sago c'est normal ah parce que politique bi peut-être day am ñu muy dundal c'est un moyen de réussir pour certains c'est une promotion sociale pour certains et puis c'est une manière de se venger pour certains et et cetera et cetera Sénégal les gens dañu jël discours yoo xam ne c'est des menaces yeneen c'est de la menace subversive xam nga la menace subversive ah c'est l'incitation à à la révolte à la violence à, à la déficience de pour qu'on défie les institutions étatiques ñoom seen bopp bu kii ne si on valide pas le monde et que mu am ay procédure de forme ci ñuy déposer ay ay ay candidature mais y a problème xam nga lu ñuy déposer candidature même yow booy déposer pour ne être pour être admise à l'école des journalistes mais on te demande ton ton ton diplôme qui est le bac ou bien master wala licence on te demande un casier judiciaire et cetera la politique aussi c'est comme ça il y a des formes de procédure la loi définit définit le fait de voter le droit au vote et tout mais pour être candidat eh c'est une procédure administrative bu dee yow da nga ñëw déposer ci préfet wala dara am ñu ñu rejeté wala dara si docteur Baba Diop dit que kenn du fi voter mais c'est pas vrai les gens voteront parce que voilà qu'il y aura des troubles et des et des, et des un désordre déjà il sera responsable parce que moom moo koy organiser bu boobaa pour mettre en exécution sa menace ñeneen ñi aussi ñoom it bu ñu waxee yeneen menace kële wax li ma xam mais il y aura pas d'élection finalement il y aura que du désordre et que l'état l'état de droit va rester la subjectivité bi ñu bëggee nit ñi di raisonner fii mais comme maître li mu expliqué le parquet il est administré mais les juges ils sont irresponsables indépendants et inamovibles hmm. donc c'est le principe du droit qu'on retient on veut pas aller là-bas naan juge bi comme malgré loolu day ànd ak Macky Sall c'est pas vrai il faut qu'on arrête ça pour qu'on soit des gens responsables un état normal le procureur de la République il est dans une administration il est parti au procès au nom de la société sénégalaise parce qu'il exerce l'action publique et c'est l'action menée au nom de la société